physique grand zal balaa ñuy ñëw ci biir combat beeg bi. xam nga Babacar man lu ma d'accord ñu baal ma mais man mënu ma d'accord nga nekk mbër mu ndaw. xale nekk xale. Hmm. ngay ngay ba pare te duñu la gis nga dagg yenn surtout biir biir. da ngaa gisut ci ñoom loolu. dagg man bëgg naa mbër bu sumee ko Babacar. sa biir xale bu ndaw sa biir. war na hmm. am ay doñ. ab domino yi taxaw domino bëgg naa ko gis ci biir hmm? xam nga ne booy papa booy ba ball kii mii nii papa booy jine papa booy jine mii nii ak kii nii jokkeel jokkeel mi man dama leen yërëm nag quoi seen combat bi tamit aussi waaw combat perfection la woon combat perfection la ci ñoom ñaar ñëpp hmm, hmm. man dama ne peut-être nii la mënoon demee waaye nag Babacar waroon nañoo indi forme yu gën a kii nii ak bëri bu parce que li ma jot seetaan nii Babacar combat bi dafa mel ni bëre simple la. Hmm, daa mel ni bëre simple la. dafa mel ni bëre simple dañuy jékki jàppante loxo jàppante gisuma benn pièce bu kenn teg ci ñoom ñaar li ma jot seetaan nii laa wax. li nga seetaan nii dee fa am. lii ma seetaan nii am fa nag. li ma seetaan jël bi am lii fa am. waaw. lii lan moo leen ko yóbbee. lan moo leen ko yóbbee ñëwuñu cent pour cent. dañoo ñàkk entraînement wala lan physiquement ñëwuñu cent pour cent moralement ñëwuñu cent pour cent. ndax moral moo leen xañ entraînement wala de waaw mais ñàkk moral nag da leen waroon tax ñu xar xartu ci combat bi parce que ñoom ñaar ku nekk da nga nekk ci ay série defet défaites. Mhm. waroon nañu bëgg combat bi ba nga xam ne ku ci sumé ko boo daanoo sax duñ ne pourtant kii bëgg na combat bi mais vraiment jégal ma baal ma mais forme yi ma gis nii mbër Babacar. man pour man nekkul forme yu la. Euh, kii daal voilà noonu quoi. yeyu la li nga nag boo jàpp forme Babacar. waaw bëre la bëre nañu. waaw des fois nga bëre combat yoo xam ne nga xam ne jàppoo forme. yow mbër mi bëre yow mbër mi bëre. waaw nga fay nekke parce que dèjà boo bëree cinq minutes bu xaw a saf tuuti nii da ngay commencé sonn. maanaam da ngay dute su ma la da ngay dute da boo jàppul forme boo jàppul forme doo ñëw a ñeme jël yenn risques yi quoi. Mm-hmm. en tout cas ñu ngi leen di encouragé ay xelal lañu. Mm-hmm. man lu may bañ booy bii def ci boppam. kan la ci. mooy ñoom ñaar ñëpp sax laay wax kii am ndam sax xëy na moral bi dina xaw a ñëwaat tuuti. Mhm. mais ki nga xam ne mi ngi daanu di daanu. critique yi bari na. waaw waaw wax wax yu bari na ci moom de wax yu bari na ci moom critique yi bari na ci moom. Mhm. man de su ma doon moom la. Mhm. dinaa entraîner ji quoi. papa papa. da gis ne entraînement am dafa doyul. non non des na Babacar. entraînement bi des na. ah te am ñu ne entraînement combat bi da cee gën a liggéey. waaw waaw waaw d'accord xam nga xam nga boo xoolee combat bi mu bii sax lax gën a waay poids bi xam ne wàññeeku tuuti par rapport bi mu passé bi mu passé muy bëre booy moom daan di faal moom daan di faal bi moom xaw na wàññeeku tuuti quoi mais na gën a liggéey rek ko ba pare jéem a gars yi nañu wax moom bu fekkee am na ay mbëru mag yu nekk moom ñu jéem a defar moralam da nga moral ne moralement dafa nekk. pour quoi moralement mais booy bi bu mu départ du bëri Babacar fii la ñu fekk. waaw wex xat combat am daan na am kii. non dafa wex xat dafa wexoon xat. bi muy daan nag yaay Ibama. xoolal léegi bu arbitre suuf day taxaw di négocier di xool nu mu kii xam nga loolu moral bu baaxut moom moo koy def quoi. en tout cas man de. waay du du ma wax ne du galaaj de mais tamit bon moral bi des na quoi moral bi baaxul quoi. moral bi daal moral bi baaxul parce que mënoo fi mën a bëre mën a am benn xadar yi jékki-jékki boo ñëwee di néeg léewaatu léewaatu mel ni waaw di léewaatu léewaatoo yu tee yooyu di xool lan nga war a def en tout cas na dem entraîné ji contact contact contact surtout bari lu muy contact mu contact yi su amee combat su amut combat na bari lu muy contact repère bi dina ñëwaat vivacité bi dina ñëw réflexe bi dina ñëw mais lii ma fi wax nii hmm. dese na ko de rapidité beeg parce que euh,